ay médiocre politique yu dul wax dëkk ngir seen positionnement ak seen lekk seen biir di fees seen i lex ni seen i lax ni guuj euh, di taxe nit ñi di transformer Sénégalais ay fitna ay talkatu réew ay bi nga xam ni même intellectuel yi ñi nga xam ni au moins ñu ngi évoluer ci monde islamique wala ñi nga xam ni euh, ñu ngi dund li ñuy wax islam moderne muy jàng ba xam texte l'islam yi bu noppi xam ne àdduna yi doxe comme ay tarik ramadan ngi taxaw pour xeex moo boobu ñu ngi ko fi mën a jëlee parce que ennemi islam ñoo koy utiliser muy terrorisme parce que kenn ku nekk booy xeex am na principe bu tax ngay xeex ñetti point la ñeenti point la ba ci même deuxième guerre mondiale y avait des bunut li arab wax bunut muy ay pacte yoo xam ne moom lañ tegoon ñu juboo ci pour jeexal xeex bi Sénégal boo ñëwee créé benn affaire Euh, boo xam ne politique la wala leneen la yoo xam ne résistance la comme mouvement Y en a euh, ngi leen di féliciter ci seen son bu bees bi ñu génn sax tënku ci lekk nga sept plate lekkat cinq plate doo fi commandé beneen plate cinq kenn du la ko jox très important loolu am non son bi il faut nit dafa am solo waaye daa ñëw ci restaurant bi lekk sept plate lekkat yeneen cinq plate di commandé yeneen cinq ñun ko non ça suffit nag doy na sëkk résistance yooyu dafa mus a am Abdoulaye Wade moom la liggéey digganteem ak Léopold Sédar Senghor moom la def digganteem ak Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñu dugal ko kaso ay yoonu yoon ndax ko ay yoonu yoon dugal ko ci gouvernement euh, dégg nga bi Idrissa Seck bëggee attaqué sax Abdoulaye Wade ni mu dellu si waat ci histoire boobu et pourtant moom était le ministre du commerce euh, pouvoir politique yii xew nii tey nii booy yéen jaaxal de mais lu yàgg di am la mais toujours. principe bi ki koy incarné yàgg-yàgg day am dëkk Abdoulaye Wade dix neuf ans yoo xam dafay nekk ci opposition bi dugg ci gouvernement génnaat ànd ak Massamba ànd ak ma dem di ba nekk président de la république itam dafa dund résistance boobu euh, donte woon ni euh, troisième mandat bi nekkul woon xeex principal bi su nekkoon du woon dem mais li ñu doon xeex mooy cas bloquant parce que xamoon na ni génn na ci xolu Sénégalais yi bu bëgg leen wax ne su ma amee nombre bii ay voix damay jàll. te boobu sénégalais yi ñoo gagné loolu mooy li Ousmane Sonko di wax naan kenn mënta def face ak peuple parce que peuple bu ñuy génn principe mooy tax léegi nag ñi def politique ñoo ci dugal leneen xeexu Ablaye Wade 2011 préélectoral du woon troisième mandat mais après mandat bi da ko bëggoon gagné gagné bu yomb pour jox yi fi muy gàr bu lokan la gars yi woon loolu du fi amee kii it nag dañ ni ko bi nga gagné. constitution bi mu fi fekkoon même constitution la référendum ngi indi sopp ci ay quelques tombes kon da ngaa falu woon sénégalais yi fal la mandaawu sept ans bi mandat la mandat la léegi na loolu boo koy incarné da koy def ci wàllu résistance résistance ñu ni yay yee fitna day def nii day def nii nguuru Macky Sall li ñu fi téye ci ay journalistes li ñu fi bundu xatal ci ay journalistes loolu képp ku yàlla tax di wax lu ëpp ci sa gémmañ wala nga tàcc ko wala nga cautionné ko laa wax sa onditi te xaw des na moom la ñu jox muy déroulé moom mooy doxal mooy nguur mais ki jiite bu mënta muñ la ñuy dal ci kawam ndax teraanga ji ko yàlla defal may di ko fayu ci kaw ñi mu jiite ça pose problème Hadj Abdoul Aziz loolu wax na Abdou Diouf ni ko da ngay muñ li la nit ñi def ndax li la yàlla defal boo jógee palais ba ay aéroport oto dootul bouger te ko fekk ci talib mu wàcc teraanga ji yàlla dafa defaloon Abdou juuf da def la président Macky Sall mais dama ni ci biir entourage ñi nga xam dañuy politique te amuñu métier yaakaaruñu lu dul politique te ñi dañoo féete féete président Macky Sall te am tuuti as pouvoir foog ni bu nguur gi jeexee ñu dee ñu log seeni leex mu ni guuj ñoo ni kenn du wax saa boo waxee résistance ñu foog ni taal guerre la taal fitna la Sénégal kenn bugg fi fitna parce que boo amee fitna kenn du ci mujj mais baatu résistance musta nekk fitna ci Sénégal ku jiite di nga am opposant yaa xëy ci mu laana mm. nañu bi daal jëm kanam. amiin nga jeexal foofu Sénégal Macky Sall comme ni ko waxee mu daal di jeexale foofu nag. Sénégal waaye nag.